jërë ngeen jëf suñu mbokk internet yi nga xam ni saa su nekk rek yéen a ngi jël seen temps wax dëgg di ànd ak Thiès Info te boobu ba léegi tàyyiwu leen topp ay bëgg-bëggam ci ay plateforme am ci site bi rawatina nag seen rubrique jàngat ci Thiès Info TV ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di rafetlu fidélité gi ak bëgg gi ngeen bëgg jàngat saa su ne ngeen ci ànd ak ñun ginnaaw bi loolu weesoo dañuy sàkkuwaat rek ci yéen ndax nag mënuñu leen a fay amuñu loo xam ne jox nañ leen ko lu dul jaajëfal leen encouragé leen waaye di sàkku ci yéen ndax nag cofeel goo xam ne nekk na suñu diggante ngeen wéy di abonné ci seen seen YouTube Thiès Info TV ci biir rubrique jàngat di bàyyi seeni commentaire ndax nag yéen a moom jàngat jàngat dañ ko def ngir yéen mu topp seen bëgg ba topp seen soxla ngir saa su nekk rek lii xew ci réew mi xew ci àdduna bi xew ci biir Thiès ci fait divers ñu mën ko indi di leen ko faram-fàcce ak yeneen sujet yoo xam ni sax day romb fait divers nekk cadre yoo xam ne dañ koy dund ci suñu askan ñu mën di toog di ko échanger ak yéen bu ko defee ngeen mën di ci jariñu kon nag amuñu seen loolu di leen bàyyi ngeen wéy di abonné ci seen seen YouTube Thiès Info TV ci rubrique jàngat jàngatu tey bi mbokk yi mu nekk jàngat boo xam ne nag doy na waar yéeme na romb na ab tool comme li wolof di wax te itam koo koy nit li sax danaan est-ce que lii moom jaadu na wala lii moom nekk na mu nekk benn mit boo xam ni day daal di travailler psychologie am rëbëje am xelam ndax du mën a comprendre bi phénomène ak waxtu wi nga xam ne fi la xewee biir Thiès lañu jëm mbokk internet yi lan moo xew benn soxna su toll ci juróom benn fukki at ak ñaar moom lañu jàpp Tamba day jëfandikoo li ñuy tere loola nag daanaka balu ñu ci yaatal rek dana ci taxaw def ci seetlu bu ndaw rek ana soxna su day ni am ay njaboot ñu baree bari tegu ci ginnaawam muy jëf def ju ñaaw ji ban koy teg loxo loolu nag lañ fas yéene waxtaane feey nan la demee mbokk internet yi ay ca ñu dem ca euh, soxna si mu ngi toll ci juróom-benn fukki at ak ñaar maanaam 62 ans am ay dara nag lay wuyoo moom nag daal di nañ koy tëj ki démb nag ci àjjuma ji lañ ko tëj fukki ak juróomi kaso ci tribunal euh, bu grande Thiès ndax nag dafa doon jëfandikoo li nga xam ni moo di toxum yàmba foo ko fekk rek mi ngi yor ay joint duy ko ba mu fees di ko doxee ni ko euh, waxambaane yu góor yi nga xam ne dañuy jëfandikoo loolu di utiliser lu ni mel moom la ko daan doxee muy nekk loo xam ni itam yéeme na loolu ci daanaka ña fekk woon démb procès ba ci tribunal bu Thiès ndax mënuñoo jàpp ci seenum xel ni ana jigéen di def jëf ci ni mel ba nu koy teg loxo loole nag nekkoon loo xam ne da doon travail xelu euh, askan wi nga xam ni teewoon nañ fa soxna si bi ko jàppee ba indi ko nag euh, ci fi nga xam ni moo di euh, barabu kaso bi ñu ko tegoon daanaka ba muy am ab audience euh, am na nag ay leeral yu mu indi ndax nag tuxum yàmbaa mi moom daanaka ba mu koy def da ca laaxaale daanaka ay xaritam yu jigéen koo xam ni mu ngi wuyo ci turu Aseen am na fanweeri at ak ñaar nekk ak coiffeuse di liggéey di def salon de coiffure ak ñaari waxambaane yoo xam ne ay góor lañu kaa Jóob ak Akéré ñoom la daan lëxalikoo ci am néeg daal di boyal joint kenn ku ci nekk nag yor sa taxañub xam ni diis na diis goo xam ni boo koy mëyi mëyee day mel ni ngeer moo taal wala sébb boo taal ci ab koñ noonu saxaar si di sonale nit ñi na la saxaar si sonale ña mu dëkkal ñooñu nag ñoo ko daal di yoole daal di woo nag gendarmerie ñu daal di wàcc bi ñu wàccee nag ñëw ci barab bi nga xam ne fi leen ko doon defee ci seenum néeg ñu daal di leen di teg ay loxo waaye li ci gën a yéeme mbokk internet yi maanaam mooy bi gendarmerie ñëwee dañu koo jàpp ndax nag dañ koo fekk mu ràbb joint boo xam ne diis gi mu diis di ko mëyi mëyee di ci sàkku ay gu ngir defar ab boppam ci jigéen muy lu doy waar defeere na leen nag parquet gannaaw ba nu lëxoo ca kasob Cees ay diiri fan yu baree baree bari démb nag ci àjjuma ji la ñu daal di gësam seenub dossier ndax dossier la boo xam ne wax dëgg tribunal bu koy atte dina ci def temps bu gudd boo xam ne ndax na kéemtaan ay jigéen ànd ak ñaari góor vraiment ñaari jigéen ñaari góor lëxu ci am néeg amuñu benn xalaat lu du toog di tox ay yamba surtout nag mag mi nga xam ne moom moo leen mag nekk seen maam sax ndax nekkul seen yaay ndax ay xale yu am fanweeri at dëgg nga dajaloog ñoom am 62 ans kooku yàgg nga lal plan yoo xam ni doy na waar ci barabu attekaay bi nag kenn ku ci nekk nag yaa ngi jéem a wax ngir setal sab der euh, ndaw si moom euh, nga xam ni moo ci mag moom dafa nangu ni moom tuxkatub yàmbaa la ndax nag euh, donte dañ koy tere daana ku jëfandikoo ca anam yoo xam ni ay bëgg-bëggam la ay sensation la ngir mu am ay yëg-yëg waaye ñam ca laaxaaleel nag ñooña moom kenn ku ci ne yaa ngay jéem a setal sab waaye nag taxut ñu set ndax dossier bi diis na te itam bu yegsee ci yoon rek a ñàkku ni dugal nañ ca seen loxo ndax ñoo def soxna si nag di wuyoo ci turu Aseen am fanweeri at ak ñaar ak euh, waxambaane wi di Kaa nekk góor góoral leen kenn ku ne yaa ngay seetal sa bopp nag ca mbir ma ni ñoom wax dëgg jëfandikoo wunu yàmbaa xëy na toog nañu waaye la leen yóbbu ca néeg ba itam tey na xel ndax bu fekkoon jëfandikoo ko du nu am relation ak meer bi bay toog ci am néeg meer bi boyali juin ba police fekk leen fa loola itam xel du ko nangu moo tax léeg bu ñu taxawee ci barabu attekaay yi kenn ku ne da jéem a seetal sa der donte def nga ngir nag bëgg buñ lay daan daan gi woyof waaye taxul ñu génn ci ñoom nag ba ñu demee ba nga xam ne insisté nañ ci leen tribunal daal di leen i teggi daan muy Aseen ak Kaajo di xale bu jigéen bu ndaw bi ak uh, moromam di góor mi nga xam ni fekke woon nañu maire maire bi nag moom nee ñu moom moo def li ndax nag foo ko fekkaan rek mu ngi takk ay joint di ko duufal di wut ku ko ci jàppale ba tax na moom ak beneen waxambaane bi di Akere ñoom daal di nañ leen i tëj ci kaso bi diiru fukki fan ak juróom ña ca des ubbi seeni kër mu mel ni phénomène la boo xam ni doy na waar mbokk internet jàngat gi ñu ci mën a def mooy ana soxna su tollu ci juróom benn fukki at ak ñaar waroon na toog jaamu yàlla waroon na toog encadré ak njabootam waroon na toog itam xalaat ni ëllëg wax dëgg âge bi mu toll njabootam dinañ fi tolli tey itam bu yàlla moomoon bakkanam bu demee baleen fi war naa am woy wu rafet woo xam ni dañ koy xoole njabootam di leen jox cër saa su nekk ca koñ ba ñuy dëkk ca Cees defu ko jëfandikoo ba da nga dëkkal di ko xeeñcu mu naqari leen loolu ba nu woo police ba police fekk la ci sam néeg jàpp la ci loo xam ni daanaka jaru ko woon ndax waru ko woon a dund ci jigéen rawatina borom kër ndax nag dara gënta ñaaw ñu fekk la li naan la main dans la dans le sac fekk la nga yor joint boo xam ni ràbb nga ko ràbb ko diis di ko dox mimato amato lay ndax nag yow la waaye ña ca des xëy na bu buñ leen fekkut lan moo leen indi ca néeg ba looloo jaaxal mbokki internet yi ndax nag bu fekkoon koy ñoom bu jigéen bu ndaw bi ak ñaari waxambaane yu góor yi fekkiwuñu meer bi ci néeg bi amuñu fa soxla duñ fa dem ndax tey jii man ngaa dëkk kuy def lu ni mel bu fekkee du sa bëgg-bëgg mën ngeen di rombante du leen sëkk waaye nag bu fekkee dem ngeen bay toog di wax rawatina ci biirum néeg moom mu am ay capacité ak fitu gaynde woo xam ni ci jigéen day taal ab joint di may mayi di leen ci woo ngir nag ngeen mën koo fekk si ci jëf ju ñaaw jooju loolu day mel ni kon yéen yéen bëgg-bëgg kon nag jàngat bi ñu ciy def mooy rek ñoom ñi nga xam ne ñoom leen ko woon bëgg ndax nag relâche bi day mel ni ñoom defuñu woon dara waruñu leen woon a relaxé dañ leen waroon a booleeg ndaw si ñu tëdd am na ci mbokk internet yoo xam ne sax du ñàkk xay na ñu xalaat ne fukki fan yi kaso ak juróom doyut ndax nag lu day ni chanvre indien ci jigéen ñu fekk la nga koy tox di ko jëfandikoo ni kuy jëfandikoo lu baax loola moom danoo jàpp ni dangay yor sa liberté te tam yàgg bëgg lu bon rawatina nag jigéen ju day ni toll ci âge de retraite nga xam ne bu doon liggéey tey ji génn na fonction te itam amul njaboot askan wa mbokk ay njaboot am nañ ca mu waroon na préserver seen dignité defu ko dugg ci ay looxóor yoo xam ne ak ñàkk fayde dong moo ko ci yóbbee ndax ay xale yu ndaw la ci àndal muy lu yéeme lu doy waar loo xam ne askanu Cees yépp kenn ku ci ne ba léegi yaa ngi dar sa gémmiñ naan moom ndaw si moom lan moo ko dal beneen jàngat bi ñu ci def itam keroog bi mu jàkkarloo ak euh, attekat yi waroon na nañoo gëstu ndax yàgg na koo def ndax yàgguta am réseau bu nekk ci ginnaawam nekkul ni jëndee xëy na léeg-léeg ngay jëflante ak ñoom di leen koy jaayeel di ci am dara war nga xam itam réseau boo xam ni ña la koy jaay ci anam wan koy liggéey bu ko defee ñu teg leen loxo loolu lépp enquête bi da ko war na révéler bu ko defee mu nekkaat beneen système de réseautage boo xam ni ñàkku ni bu ñu jugee ci ndaw si ak ñi mu àndaloon ñooñu dañ leen di teg loxo ndax nag jëfandikoo yàmba nekk na loo xam ni suñu loi Sénégal surtout code pénal tere na ko am article yoo xam ni bàyyi na ko ci ba képp koo xam ni da koy jëfandikoo bu la yoon dalee dalee ci sa a tëdd ay atti kaso yu bari waaye la fukk fukki fan ak juróom loolu moom tey na xel te itam doy na waar lool ci sénégalais yi neexuta dégg nag ndax nag ñaare bu nu ëllëgee bu nu gisee keneen ku koy def maanaam soxna si sax jëf ji mu def day mel ni day daal di bëgg moroom ndax nag bu nu ko tëjee fukki fan ak juróom génne ko ëllëg beneen moroomu jigéenam fii ci biir cees mën naa toog ci néegam wala ci am penc di tox lu ni mel di ko sàkku wala mu koy jaay bu ko defee kenn du ci mën dara même boo ko yóbboo kaso mën naa président lay lay lay ba ni leen fii ngeen fii jël doomi jàmbur tëj ko fukki fan ak juróom euh, jigéen tëj ko fukki fan ak juróom muy werante yoo xam ne mën naa ne ci suñu société lool itam ay jàngat la yoo xam ni war nañ ci bàyyi xel ñaar mooy nekk na loo xam ni man bu yàggee ci sa bopp mën na laa dofloo ndax nag day dem ba jaxasi sam xel ba dootoo nekk doomu aadama boo xam ne yemb na ci wàllum xel donc circonstances yooyu yëpp mu dajale ci génn gi nga xam ni génne nañ ko ñi àndoon ak soxna si ak bàyyi xam ni soxna si ak waxambaane wu góor yu banal mbir mi daal eh, daal de amul woon ab gravité wala ampleur bi mu waroon a am amu laaj bi ñuy samp mbokk internet yi soxna si lan moo ko yóbbee ci toxum yàmba jigéen ju am juróom-benn fukki at ak ñaar waroon na toog jaamu yàlla waroon na toog uuf famem lan moo yóbbu ci toxum yàmba ba police fekk ko ak ub joint ci biir néegam lan ngeen xalaat ne moo ko yóbbu ci toxum yàmba mooy laaj bi nga xam ne samp nañ lan ngeen xeelal soxna si nag ak ñi nga xam ni relaxé nañ leen ñu dem ci seen njaboot bu ko defee ñu defaraat seen toogaay defaraat seen koddaay defaraat seen éducation communication ndax nag ci askan wi leen bokk ngeen beddiwu leen lan ngeen ko xalaatal muy ñaari laaj yoo xam ne mbokk internet yi ñu ngi ciy xaar seeni réponse ci commentaire yi rubrique jàngat ci suufu vidéo bi bala ñu yëkkati jotaay bi rek ñu fàttali leen ni leen rubrique bi seeni mbir la da leen bés cloche de notification bi di abonné ngeen i bàyyi seeni commentaire commentaire bu ñëw nag am na solo ndax nag euh, amul benn commentaire boo xam ne dañ koy dàq wala ñuy tuutal borom ndax nag xel xeltu te itam comme que dañuy jëf te gisu leen ñu di leen wax lii am muy dëgg ci askan wi ngir defaraat jikko yi baax na yéen itam ngeen ci joxe seeni xalaat kon commentaire yooyu bu leen koy fàtte te bu leen ci tàyyi kon nag ñi ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen jaajëfal ba beneen yoon ak yeneen rubrique jàngat fii ci Thiès Info TV jërë ngeen jëf